ñu ngi am mbégte dalal ci matinalu tey bi euh, Aymérou Gningue mooy euh, président conseil d'administration bu Petrosen Holding euh, bokk itam ci secretariat exécutif national bu Alliance pour la République APR ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. waaw Fatou maa ngi lay fay bu baax di nuyu u seen yëpp. di kontaan itam ci invitation bi nga ma invité. Mm, li gën a fës ci actualité bi euh, mooy bien sûr li président Macky Sall wax ne du bokk ci élection présidentielle bu 2024 euh, mu wutee ak lu ñu bëri doon xaar euh, naka nga gàttandoo boobule xibaar yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ak moom parti nekk également àndandoowam depuis bu yàgg. waaw xanaa di wax ni dama am mbégte ci li président wax. Euh, parce que dafa wone ni Sénégal euh, euh, boo ko bëggee tënkale ak ak benn doomu aadama doo ci génn Sénégal am réew la réew nag ñu bari ñoo koy bokk ñu waa réew ma yépp ñoo koy bokk ku nekk am sa xalaat bu ñu boolee xalaat yi ñépp duñu mën a ànd waaye xalaat bi nga xamee ni moom la nit ñi gën a jàpp ni moo gën a yéwén ñu doxal ko kon président Euh, dafa wax lu am solo mooy man de xam naa ni yoon sax mayoon na ma ma nekk candidat waaye nag keroog ba may def élection ci deux mille dix neuf dama wax waxaat ne man lii mooy sama dernier mandat kon nag sama wax boobu moom laay dëggal ba tax na dama leen di wax ni man du ma nekk candidat xam nga ñeneen ñi rek ñoo doon wax mais moom kenn mësu ko dégg mu wax mm-hmm. moom li mu daan wax mooy bu jotee dinaa waxtaan ak réew mi wax leen ban décision lay jël xam nga nag ñun ñi fi Sénégal dafa am ñoo xamee ni ay spécialiste la ñu ci nettali géntu jàmbur nit koo xamee nekkoo ci boppam xamuloo lu mu gént nga bëgg xëy nettali géntam te moom waxagul loolu nag moo daloon ñu bëri loolu mooy li nga xamee moom laa ci jàpp muy président jël na décision te man ra décision bi mu jël dama ko rafetlu parce que li ma ci gën a jàpp mooy génnewul loxoom ci Sénégal parce que xam nga tey président Macky Sall mënul génne loxoom ci Sénégal parce que doo am président bu mel nii nekk ci nguur gi depuis 2001 ak Abdoulaye Wade nekk fa mi euh, am fa ndombu tànk ay ministères yu bëri ba nekk premier ministre nekk président assemblée nationale ñëw tey nekk président de la république fukki at ak ñaar su ko yàlla dogalee bu ñu yeggee fi ñu fi ñu war a yegg ku mel noonu expérience bi mu am jiite woon Union africaine kooku mënul génne loxoom ci Sénégal waaye nag du nekk candidat waaye nag li nga xam ni war na am taxawaay pour que Sénégal kii nekk réew boo xam ne réew bu ñuy respecté réew boo xam yoon moo fi dox réew boo xam ne république la réew boo xam ne dañuy respecté institution yi fi nekk kooku nag loxoom waru ci génn loolu moom laa jëkk rafet hmm. beneen bi ci des mooy ku mel ni président Macky Sall soo ko amee ba muy dem di nga am nag lu la naqari ci sa biir xol pas parce que moom li mu bëgg yow bëggoo ko déedéet waaye da nga naan mais ay su Sénégal xamoon li ma xam ci moom kon dañ koy téye mu yeggaleel ñu parce que dañu toll ci jéggi réew boo xamee ni dafa soog a trouver pétrole ak àdduna ni mu jaxasoo ak yàlla li mu ko may ci domaine boobu da nga naan suma sañoon mu toog fi dimbali ñu ba jéggi ba nga xamee ni diggante deux mille vingt quatre ba deux mille vingt neuf dinañu stabiliser lépp lu jëm ci wàllu pétrole mais loolu sa naqaru bopp la waaye nag danga koy nangu xam ni moom li mu jël ci décision mooy décision bi nga xamee moo gën a baax ci Sénégal mooy décision bi nga xamee moo gën a baax ci moom mooy décision bi nga xamee ñun ñi nga xamee ni dañu ànd ak moom itam jàpp nañu décision bu rafet la bu baax. Mm. alors euh, ay euh, àndandoowam yu bëri APR ak euh, ñeneen fësaloon seen bëgg-bëgg pour que mu nekk seen candidat yéen sax mm-hmm. maire ak président conseil départemental daje woon ak moom mm-hmm. samedi mm-hmm. yóbbu ab pétition ni ko da ngeen bëgg mu nekk seen candidat ci 2024 est-ce que loolu yëpp bu ñu ko dajalee itam amu leen tuuti mbetteel ci décision bi mu jël déedéet xam nga réew moo demee noonu booy def politique xam nga maire bu nekk biñ koy fal dafa am fum mu bokkoon wala dafa toog bokk benn parti jox ko kayitam pour mu nekk loolu kon ñun ci suñu biir parti ak suñu biir coalition li ma wax rek li ma doon wax léegi rek mooy dañu jàppoon ni président Macky Sall mi de war na gunge réew mi pour mu jéggi waaye nag du woon pour forcer ko hmm. pour wax ko ne cofeel bi ñu am ci moom ak ni ñu gisee liggéey bi nga xamee moom la liggéey rawatina nag maire yi nga xamee dañu bokk ci biir Sénégal xam nga Sénégal dafa am lu fi xew loo xam ne daf fi dugg bi mu fi duggee daanaka bi président Macky Sall ñëwee ak léegi la mooy koom-koom bi nga xamee ni ak infrastructure yi nga xamee mooy tabax yi nga xamee def na ko ci biir euh, réewu kaw yi ba réewu kaw yi dem nañu ba ñeewatuñu réewu taax ku mel noonu nag su la liggéeyalee lu mel noonu danga naan wax dëgg yàlla su ma sañoon day ñëw continuer ak ñun waaye comme ni ko président waxee Sénégal rek moo ñu ñor parce que nit moom dafay xëy euh, day dund jóg dem ba yàgg mu tële bu ëllëgee mu génn àdduna te Sénégal moom day continuer di dox moo tax mu ne am na doomu sénégalais yoo xam ni jàpp naa ni li nga xamee ni war nañ ko tabax pour mën a Sénégal mën a jëm kanam ñoo ngi ci réew mi kon nag comme man sama kàddu waxoon naa ni dootuma nekk candidat tey laay gën a fësal ni dootuma nekk candidat. Mm. beneen bi ci des. mooy euh, président Macky Sall dafa liggéey ci plan plan mooy nga taxaw tey ni maa ngi fii tey bu ëllëgee fii at fële laa bëgg a nekk moom la ñu tuddee le plan Sénégal émergent. Mm. kon ñi ñu ànd ak moom xam nga lan mooy suñu suñu xalaat. Mm. mooy ñu fexe ba plan Sénégal émergent boobu ñu doxal ko ba bu ñu demee deux mille trente cinq ñu neen wax dëgg yàlla nag ah xarkanamu Sénégal daal kenn foogul woon ni dina mën a egsi fii mu egsi mm. kon maire ay exécutif la dañ leen a fal ci seen gox loolu moo taxoon ñu def loolu waaye nag du pour forcé ko parce que ginnaaw maire gis nga ay kilifa diine mm. gis nga ay arabisant gis nga ay ndaw gis nga ay jigéen ñu ñu def pétition bari nañ mm. waaye li am solo mooy tey jël na décision te wóor nañu ne loxo président Macky Sall du génn ci réew mi mm. parce que kenn du am ku mel ni président Macky Sall di wiccax loxoom ba mu génn ci réew mi kon xalaatam dañ koy soxla expérience am dañ koy soxla ni ko Afrique di soxla ak ni ko àdduna wërngal képp di soxla. Hmm. doon nañ dégg itam yenn kilifa yu bokk ci majorité bi ne amuñu beneen plan waa APR. Hmm. notamment ak benn Bokk Yaakaar. Euh, tey hmm. huit mois des ci ñu egg ci élection présidentielle mu ne du bokk. est-ce que waxtaanee ngeen loolu est-ce que waajal ngeen seen bopp pour beneen candidat wala euh, xalaatagu leen ci. waaw waaw Fatou dinañu waaj. xam nga euh, def candidature élection moom conseil constitutionnel di wax bu élection bi de see fanweeri fan ak juróom rek la ñuy fixé loolu. Hmm. loolu amul benn problème. mais est-ce que déggoo bi dina ci yomb si Benno Bokk Yaakaar. waaw loolu mënuñu ko xam. mais nag li nga xamee ni moom laa lay wax nii ñun daal lépp lu ñu def lu dul jéem a déggoo ànd ngemb suñu mbër man yàgg naa ko wax sax ci ay émission te lii xewul hmm. damay wax ni que Benno Yaakaar moom xel demul ci ni sax ñuy dem élection te duñu am candidat. kon dinañu am candidat ah est-ce que dinañu am candidat bu ñépp di juboo loolu moom kenn amu ko parce que lu yonent bi amul woon sallallahu alayhi wa sallam keneen du ko am hmm. waaye nag dinañu am candidat boo xamee jàpp nañu ni bu ñu ko jàppalee ànd ak moom gunge ko ñun ñëpp ñu def ko te ba pare nag nangoo liggéey amul kenn kuy mën a taxaw suñu kanam ba li ñu bëgg muy plan Sénégal émergent ñu doxal ko ba mu yegg deux mille trente cinq amul kenn ko xam ne dinañ mën a tee def loolu. Hmm. loolu nag liggéey la waaye nag sama xel dal na ci parce que président la république bi nga xamee ni mooy président Macky Sall créé parti en deux mille huit yàlla jox ko nguur gi en deux mille douze mu bokk ko ak ay gor mais ànd ak ñoom deux mille douze ba tey kooku ku la waxul ni am na talent mooy am na xarañ hmm. am na xam-xam. boo xamee ni mën na waxtaan ak nit ñi ba ñun ñëpp ñu jubóo ci candidat bi mooy candidat bi gën ci ñun jàpp naa ni loolu bu ci dugalee loxoom dinañ ko am parce que nag am na loo xamee ni kenn werantewu mooy président Macky Sall mooy leaderu APR mooy leaderu tam Bokk Yaakaar nag kilifa soo ko amee dina am joxoñ yoo xam ne su la ko joxoñee di nga xamee joxoñ bi li tax mu wax la ko parce que dafa xam ni njariñu Sénégal moo ci nekk loolu moo tax man de ak ñi man ni man am ñi may waxal dinaa ni nañ ko déglu waxtaan ak moom seet itam fan la xalaatam jëm ba bu fa jëmee ñu jàppale ko ci loola ndaxte man li ma ñor rek mooy Sénégal jëm kanam. Hmm. te li ko a jëmee kanam mooy ñu fexe ba plan bi nga xamee ni tabaxoon nañ ko nga xamee ci la yokkute Sénégal nekk ku nekk yokk ba yëg ko muy plan Sénégal émergent ñu mën ko doxal ba deux mille hmm. bu weesoo benn bokk yaakaar amuloo njàkkare pour seen parti APR ñu bëri ci ay gëstukat di euh, faral di souligner ni que du parti bu ñu hmm. structuré kon tey hmm. bu Macky Sall demee jafe-jafe yi mën naa jóge fu ne amuloo njàkkare ci wàll boobu. waaw xam nga nit moom du wax ni euh, euh, loolu mënul xew parce que man xaw ma luy xew ëllëg mais daal li ma la mën a wax di ko wax auditeurs yi Fatou mooy wax dëgg yàlla. jàpp naa ni président Macky Sall bi mu yoree partem tam même bu bu fekkee structure structuré wu ko comme ni ñuy waxee ku nekk mun la yaay yaay lii yaay lii mm. ñun ñëpp nanguloon nañ ko cëram moom mooy kilifa gi jàpp naa ni itam cër boobu mu nekkoon kilifa APR dinañ continuer di ko nangul parce que président waxul ne nekk dama dama démissionné ci politique de dafa ne du ma nekk candidat kon jàpp naa ni ba léegi mooy patron APR jàpp naa ba léegi mooy patron Benno Bokk Yaakaar ah est-ce que nag ñëpp dinañ ko wuy loolu moom suñu kanam la nekk waaye jàpp naa ni ñu ëpp buñ dee téeméer juróom-ñeent fukk yi dinañ ko wuy te loolu rek mu am solo parce que ñeneen itam dinañu jógee feneen ñëw wuy ko parce que nag li mu def ak xam-xam bi mu am ak xarañte bi mu wone jàpp naa ni ko mel ni président Macky Sall ku ko am war ko war nga ko téye ak sa fukki loxo te loolu mooy njariñu Sénégal. Hmm. way wi rafet na waaye am na ñu jàpp ne balay gën a rafet mu organiser élection yoo xam ne ñëpp ciy bokk. Euh, hmm. xel dem ci ku mel ni Ousmane Sonko moom sax tàmbale wane ni hmm. président Macky Sall jubluwaayam benn la te mooy fexe moom du bokk bu bokkul euh, lam mën a jur. Euh, ragal eh. nañu ne du baax ci réew mi. waaw loolu yaakaar ne noonu lañ mën a def ba am élection yoo xam ni ñëpp dinañ ci gis seen ba waaw waaw élection moom ñi ci war a bokk ñëpp dañ ci bokk. Hmm. xam nga ku ku dem ku dem ku dee ci marché. yaa tàggee sa bopp man loolu vraiment du ay wax yu may wax fii li ma li ma bëgg a li ma bëgg ñun ñëpp ñu xam ko hmm. mooy ba Sénégal nekkee Sénégal ba tey dafa am code électoral boo xam ne mooy organiser kan mooy bokk ak kan modul bokk dafa am kuréel bu ñu tuddee conseil constitutionnel koo xamee ñoom la jox cëru ku nekk mën na ni man candidat la mais bu ñu demee bay simpi dañ naan kii mënta nekk candidat ndax lii moo tax mënta nekk candidat waay waay waay waay nañu bàyyi ñu doxal loolu parce que réew dafa am ay keno keno mooy institution yi nga xamee ñoo koy doxal nañu bay institution bu nekk def liggéeyam su ko defee coow du bëri waaye nag bu fekkee dañu bëgg ni élection in euh, euh, élection inclusive inclusive mooy ñu war a bokk ñëpp bokk rek waaye ki nga xamee ne nag dafa taq ba mënta bokk kooku mënta bokk nañu waxante dëgg bu ko defee nag ñu dem élection ku gagné ñoo xam ni kii moo gagné jël réew mi doxal ko loolu mooy li nga xamee mooy jàmm réew mi te Sénégal itam loolu rek la ñu bëgg. Mm-hmm. parce que nag nett li gént bi ma doon wax. Mm-hmm. da ngay da gis ñoo xam ne sax dañu net net nett li géntu Sénégal yi ni Sénégal yi lii la bëgg waaw ñoom fu ñu taxaw ba nii Sénégal yi lii la ñu bëgg waaw. alors laaj bu mujj wala ponk bu mujj bi mooy dialogue bi nga bokkoon ci ñi nekkoon ci biir waxtaan yi. Euh, ah. bu dialogue boobu jeexee ba ñu yóbbu assemblée nationale lépp lan la ci Sénégal mën a xaar. waaw li mu ci xaar mooy dialogue bi d'abord dafa nekkul woon dialogue politique dialogue national la woon. Ah. amoon na juróom-ñetti commission ak benn commission boo xam ne moo tënk waxtaan bi. ñu koy tuddee commission de synthèse. dama bëgg sénégalais yi te xam nañ ko sax parce que ñoom ñëpp ànd nañ ci dialogue bi. gis nañ li ñu wax ci wàllu koom-koom ak ci wàllu jàppalante ak dimbalante gis nañu li ñu wax ci wàllu sécurité pour gën a aar suñu réew ba nga xamee ni li ñuy yëg mu nekk ci yeneen réew yi du fi egsi gis nañu li ñu wax ci wàllu euh, décentralisation mooy maire yi mm. yan doole lañ leen mën a jox ba ku nekk mën a téye sa population ba nga xamee lañ fay def pour réew mu mën a dox wala gox ba mën a dox nga mën koo def gis nañu li ñu wax ci wàllu politique ba wax ni ñi nga xamee ni mii dañ leen a condamné woon te président gracier leen nañ leen dugalaat pour ñu mën a nekk ay acteurs ci élection bi ñu jëm ak yeneen ak yeneen kon ponk yi ñu fa wax ci wàllu culture lañ fa wax ca culture mooy caada mm. lañu fa wax yépp pour que réew mi gën a dox ba pare ci wàllu njàng bi li ñu war a taxawee ba xale yi ñu leen di tàggat ci wàllu service civique am na sax ñu ne nañu def euh, euh, niñ ko tuddee armée nga xamee ni ku nekk di nga am jamono boo xamee di nga jaar ci armee pour armée yaraat la xalaat yu bëri yooyu yëpp defe naa ni réew mi mën na ci sukkandiku fii ñaar fukki at di ko yeesal xañ na at bu nekk pour di ko adapté waaye nag fii ak ñaar fukki at fanweeri at réew mën na ci sukkandiku ba ma jàpp kon président bii ñëw bu yàlla defee mu euh, mu mu sukkandiku ci plan Sénégal émergent mais sukkandiku tam ci conclusion dialogue bi ak ponk yu am solo yi ñu fa wax dina mën a yóbbu Sénégal ci euh, gaar boo xamee ni bi ñu fa yeggee ku ne di gis sa bopp ci réew mi nga xamee mooy Sénégal mm. loolu moo tax ma ne dialogue bi dafa am solo. moo tax ñi ko fekke woon ñëpp tey am nañu ndam te jàpp naa ni tey bu fekkoon ni tey euh, euh, euh, démb doon na tey defe naa ni ñi doon di nga dialogue bi sax defe naa ñëw fay jëkk waaye nag ah bay wéy na mbuus waaw nit moom bu jaan ji demee ba pare boo toppee ci watu jaan bi di dóor du am benn solo mooy boo waree fekkee da ngay fekkee mm-hmm. parce que loolu mooy tabax am réew. Hmm. yemuñu ci dingat ko dañ ne dil la et la ngeen fa tënktee yëpp lu ngeen waxtaanee woon la démb. Euh, xam ko ba hmm. noppi soog a. waaw waaw loolu loolu loolu moom ay waxu ku daanu ci sareet rek la. xam nga naan ay dil ak yooyu xam nga boo fekkewul dara ba pare bëgg a ñëwaat nag di wax la ca biir yow daal boo waree fekke da ngay fekk ñun daal la ñu waxtaanee ca biir dialogue ba ay kilifa fa nekkoon ay sénégalais fa nekkoon yoo xamee ni. lenn rek moo leen tënkoon mooy ñoom ñëpp dañu bëgg réew mi te dañu bëgg réew mi bañ dugg ci guta ñun daal loolu ñu fa dajalewoon lañu waroon a waxtaane waxtaane nañ ko ja tàmbalee ko nag ca lañu ñu jëkkoon a def te président Famara Ibrahima Sagna tàmbali woon ko ba ñëw ci loxo président Moustapha Niass mu yeggale ko la waroon a waxtaane daal ci ay nit yu bëgg seen réew ay patriotes yoo xamee ni seen bopp soxalu leen waaye lu doxal réew mi moo leen soxal ba ñu dajee waxtaane nañ ko te defe naa ni wax nañ ko Sénégalais yi te lépp rafet jërëjëf foofu la ñuy tëjee waxtaan bi euh, Aymérou ngi amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM fàttali ni yaa ngi bokk ci APR secrétariat exécutif national bi précisément nga nekk itam président conseil d'administration bu Petrosen Holding ñu ngi lay gërëm. waa kay maa ngi leen di sant bu baax Fatou Thiam di sant waa rajo bi yëpp di sant tam waa télévision bi ak euh, seen auditeurs yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. jërëjëf.